may woo di ma wax ñëwal parce que li ngay waxtaan ak ndaw ñi dafa am solo solo goo xam ne ku nekk bëgg na ay ndawam dégg ko ku nekk bëgg na aussi population am dégg ko parce que wax gi ñuy wax fii du waxu parparloo wax la ngir wan ndaw ñi ci ban yoon ngay jaar ngir réussir comprendre lo ndaw ñi ne leen réussir du option du lo xamné bu la nexé jël bu la nexé ba réussir c'est une obligation obligation la pour ku nekk ci ñun mu réussir ci àddunaam bari na nak ño xamné ak ni situation bi démé ak système bi nekk ci réew mi japp nañ ne nit bu féké né dafa wara réussir rek day dëkk Point E wala mu dëkk Mermoz wala mu dëkk fan Résidence wala mu judd ci alal fekk bayam » am alal wala ndeyam am alal ngir mu réussir ma ne loolu ñàkk sa parce que ku référence le « ci doomi Grand Khalifa sal » référence le « ci doomu Grand Yoff s'il vous j'en j'en parle j'en parle xam nga man xam nga man dëgg fu ma fekk fa la may bay kenn ëmbul sama sànqal ba duma gis lu ne fang ma naan gisuma ko li wé wóor li wóor mooy doomu Grand Yoff juddoo ci Grand Yoff màgge fi bu demee ba xuus ba bokk ci ñi ñuy joxoñ ci réew mi gëm la c'est important li werté wor moy bu démé tay ba am étoffe bi mu am ci réwmi mi fierté Grand Yoff la té yaakaar naa wa waa Grand Yoff delloo nañu koko parce que bi lépp taxawé lata muy doon meeru Dakar il a fallu ñamu andal ñu gagner Grand Yoff kon lolu la ngeen ko waron delloo delloo ngeen ko li des nag li des nag mi ngi ci suñu kanam li wóor mooy lu ne lu ne fang jarta joxoñ ku nelawul xam na ne xalifa du ngaaka ku nelawul xam na ne xalifa du ngaaka kon nañu jàpp ne bokk na ci doomu Grand Yoff yi nga xam ne dañu gëm seen bopp xëy na gëm boppam fonk boppam ak xam boppam moo ko yóbbee tey situation bii mu nekk mais li am solo li am solo mooy ne mbéjum kanam borom da koy fajal boppam dafay dafay des ba tey ci wàllu gëm sa bopp parce que boo gëmee sa bopp da ngay xam sa bopp bo xamé sa bop demal sa vous bo démalé sa bop mom sa bop lima ci djublu que nous la jeunesse bari na ci luy dox ci réew mi loo nous nañu né du noonu yef bi du des xeer yef bi du talibus yef bi xam yow yaay kan xam dayo am say terme de référence ba bu ku yow nga mën a taxaw ne kii mooy façon ngi nit bi may wër kii mooy façon ngi nit bi ma bëgg ngir mu présider ci sama destinée moom laa soxla mu jiite ma. ma ne leen li ngeen di kaas yëpp 30 ans wa ngi nii ngeen koy kaas ku fi ñëw mosal leen ñenn ñi jël ñu continuer waat ci beneen plateforme même plateforme bi lañ doon xeex ba léegi moom la ñuy xeex université Cheikh Anta lañ fa doon xeex ci étudiants yi ba tey. 30 ans ci ginnaaw ak léegi même plateforme bi la dara soppi ci kon il faut ñu nangu ne problème yi ci ñun la il faut ñu nangu ne ñun ci suñu bopp ñun ñoo parewul pour soppiku suñu borom nag day wax ne boo bëggee soppiku fileeg askan wi nattuñu taxawuñu ngir soppiku duma leen jàppale ñu soppiku kon dafa encore encore une fois dafa am solo ñu xam ne liy defar réew mi mu ngi ci suñu loxo ñun jeunes yi

jiital leen bu boobaa ñoom dinañu jël ay décision ci suñu kaw ñun ñi nga xam ne ñun ñooy askan wi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy taxawal askan wi